arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora moo ñëwoon ginnaaw ngemboo ngemb lu weex doomu Saafeen moo ngemb lu ruus li baa ngi wax ak moom nee na ko tojal baa ngi laaj ay jugeem Fils de doomu Saafeen abi laaj naa Youssou Diop Fils de Góor ak doomu Saafeen ak doomu Saafeen xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi xam nga boo xoolee Habib côté Saafeen la dëkkee si sërër Saafeen Saafeen si boo xoolee ay mbërëm xaaj bi yëpp ay jaxaaw siin la ñuy dëkk côté yooyu ay mbëru Saafeen lépp lu mu dëgg mais doomu Saafeen si defeen la jógee Fils de Góor si victoire la jógee waaw lamb ñu nar a neex ñoom ñaar nag ki nga xamante équipe booy ñoom si ñoom kii la moom booy bi nga xam ne mooy mooy doomu saafeen mu doomu saafeen nee nag dafa juumoon daanu loolu la wax dafa toll ci ay dynamique am solo dëgg la ay victoire am solo mu ñëw daanu booy bi na ko dama lay daanaat. mais fii sa góor sànq dafa am lu mu wax nee na ma dama koo xiif ndax dama koo bëgg a lekk. Youssou bëre combat bu yéex de fii mi ah qualité yi ma xam ci moom su ma ko waxee dem ñu ne am na ko jëm ñu ne ma koo faral te faralu ma combat bi dox ci diggante Fils de Gora ak doomu Saafeen Fils de doomu Saafeen Fils de doomu Saafeen Fils de Gora

Fils de Gora cokaas na léegi doomu saafeen cokaas na Fils de Gora doomu saafeen Fils de Gora doomu saafeen abi bi àtte na abel sif la waat na Fils de Gora doomu saafeen doomu saafeen dafa ne tek Fils de Gora eh doomu saafeen door na léegi doomu Saafeen door na léegi ñoom ñaa kenn nangoogu cee dem congogunu xeexagunu jàppanteegunu man dama bëgg ay xale yu defante doomu Saafeen dagg na bi dox ci digg géew yi fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora doomu Saafeen cokaas na léegi Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora daa bëgg dem waaye kii di yoomu Saafeen daa wàcc gis nga jàppante nañu eh doomu Saafeen door na léegi Fils de Gora na Fisogo doomu Saafeen Fisogo doomu Saafeen

eh Fils de Gora jël ko doomu saafeen fàq na ko doomu saafeen a ngay bëree fàq na ko Fils de Gora teq na ko doon na ko tànk foofu doomu saafeen doomu saafeen takk na ko eh Fils de daan na ko. Fils de Gora daan na doomu saafeen eh ci kaw përëm daan Fils daan doomu saafeen ci kaw përëm waaw waaw il n'est pas démérité waaw. Cissokho